أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته xanaa jullit bu ñu ko ne asalaamaaleykum dina fay jullit bu ñu ko ne asalaamaaleykum wa rahmatullah dana fay bismillah ñoo ngi sant sunu borom tabaraka wa taala moom mi nu may nu fekkee bii nekk sunu ñetteelu dars ci sifatu salaatu nabi yonente bi alayhi salaatu wassalaam naka la doon jullee yàlla dimbali woon nañ bañ ñëw wane julli ñaari ràkka naka ngay toogee booy sëlmal julli ñaari ràkka naka ngay toogee booy sëlmal waxoon nañ tamit ñeenti ràkka nooy toogee ñaari ràkka yi da ngay toog ci sa benn tànk bi càmmoñ bi daal di samp tànk ndeyjoor bi cat cati baaraam yi su fekkente ne julli ñeent la ci sa toogukaay bi ngay toogee tànk ca ndey càmmoñ bi dugg ci biir nga samp tànk ndeyjoor bi comme ni ko yenn mbokk yi wonee léegi léegi léegi ci toogaay bi bi ñu leen ko laajee boo amee ñaar soo toogee toogaay boobu balaa ngay sëlmal am na looy def loolu ngay def nu mu tudd taaya lan mooy taaya mooy attahiyaatu lillah wasalawaatu wa tayibaatu assalaamu alayka ayuha nabiy wa rahmatullah am na bu mel noonu am na attahiyaatu lillahi attayibaatu salawaatu lillahi assalaamu alayka ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakaatuhu السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahima fil alamina innaka hamidum majid am na riwaaya yu bari boo ci mën nga def ko kon taaya am na ñaan yu baree bari boo ci mën nga def ko salaatu ala nabi am na ñaan yu baree bari ci xeetu salaatu ala ibrahima yi boo ci mën nga def ko nga muslu ci yàlla ci ñeenti mbir balaa ngay sëlmal da ngay muslu ci yàlla ci ñeent nga ñaan yàlla mu musal la ci bu njëkk bi nga ni allahuma inni auzu bika min azabi jahannam ay yow yàlla yal nag ma musal ci jahannama allahuma inni auzu bika min azabi jahannam nga ñaan yàlla yal na la yàlla musal ci jahannama ñaareel bi mooy nga ñaan yàlla yal na la yàlla musal ci bàmmeel wa min azabil qabri yow yàlla mbugalum bàmmeel yal nag ma ci musal ñetteel wa min fitnatil mahya wal mamaat yow yàlla musal ma ci fitnaay dund ak fitnaay dee ñeenteel bi mooy yow yàlla yal nag ma musal ci waaju bon jooju tudd masihi dajjal wa min fitnatil masihi dajjali ñaan nga yàlla mu musal la ci ñeent kon booy julli boo toogee di taaya pour sëlmal boo toogee taaya pour sëlmal da ngay def atahiyaatu lillah nga def salaatu ala nabi nga muslu yàlla ci ñeent ah après lan moo des nga ñaan yeneen ñaan yi nga bëgg soo ko jëlee ci yonent bi ni mu doon ñaanee baax na boo ko jëlee ci yeneen ñaan tamit baax na en tout cas ñaan yi na baax ci yiwu àdduna ak àllaaxira nga ñaanal say ñaari wayjur comme rabbi xfir li wali walidayya rabbi irhamhuma kama rabbayaani saxiira nga ñaanal say wayjur nit buy julli day buy ñaan day ñaanal ndeyam ak baayam day ñaanal ñaari wayjuram su paree mu ñaanal julli ji moo xam julli gi farata la moo xam julli gi naafila la ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ñaan leen yàlla tabaraka wa taala ci feewu julli feewu julli nag ñenn ñi nee nañ bi ngay taaya di sëlmal la ñenn ñi nee nañ boo sëlmalee ba pare ñaan leen yàlla day nangu foofu ñaan ci feewu julli julli gi buy jeex soo ñaanee yàlla daf koy nangu ñenn ñi nee nañ julli gi fi ngay taayaa di sëlmal foofu lay jeexee ñenn ñi nee nañ déedéet boo sëlmalee ba pare lay jeexee soo paree nga sëlmal sa ndeyjoor nga sëlmal sa càmmoñ sooy sëlmal looy wax assalaamu aleykum wa rahmatullah kenn di wax salaamaaleykum salaamaaleykum day yàq julli kenn du wax asalaamualeykum du lu ñuy wax as day dëgër siin gi day dëgër asalaamu aleykum nga gestu ndeyjoor asalaamu aleykum nga gestu càmmoñ noonu la ñuy sëlmalee waaye julli taaya ba julli gi war a jeex nga ni salaamaaleykum julli gi yàqu na salaamaaleykum amul ci islaam salaamaaleykum baaxul lan moo baax assalaamu aleykum wa rahmatullah assalaamu aleykum wa rahmatullah looloo baax nga sëlmal sa ndeyjoor nga sëlmal sa càmmoñ bu fekkente ne nag julli gi ñetti ràkka la wala julli gi ñeenti ràkka la julli ñetti ràkka mooy ban ra ban julli julli ñetti ràkka mooy ban julli yow julli ñetti ràkka mooy ban julli julli ñetti ràkka laa ilaha illallah julli ñetti ràkka mooy ban waaw ban julli la ñuy julli ñetti ràkka yow ahmada ban julli la ñuy julli ñetti ràkk yow yow ban julli la ñuy julli ñetti ràkk yow yow yow timis très bien macha allah timis macha allah timis xaar ma seet fi yow il faut ma neexal la am noonu la neexal la tur bi rek ma neexal ko ma tegaat xaas bi fii julli timis la ñuy julli ñetti ràkk ban julli la ñuy julli ñaari ràkk ban julli la ñuy julli ñaari ràkk ban julli la ñuy julli ñaari ràkk ah ban julli la ñuy julli ñaari ràkk du fajar de suba ban julli la ñuy julli ñeenti ràkk ban julli la ñuy julli ñeenti raaka ban julli la ñuy julli ñeenti raaka ban julli la ñuy julli ñeenti raaka tisbaar ban julli la ñuy julli beneen ñeenti raaka ah ban julli la ñuy julli ñeenti raaka beneen bu dul tisbaar takkusaan ban beneen la ñuy julli ñeenti raaka gee kon mu ngoog julli yaa ngoog su ko defee julli suba ñaata rakka la ñaari rakka julli tisbaar julli takkusaan julli timis julli gee julli timis da ngay def ñaari rakka toog def lan doog a jóg taaya doog a jóg kabaraat ba mu tolloog say mbagg nga def ñetteelu rakka bi allahu akbar nga daal di jóg ñeent booy julli julli ñaar da ngay julli ñaar toog def lan doog a jógaat mottali kaw taal taaya jógaat mottali yeneen ñaar yi su ko defee ñaari ràkk yu mujj yi chaque jour wala benn ràkk bi lan lañ ciy jàng faatiha kese fatiha kese yeneen ñaar yu njëkk yi luñ ciy jàng kaw faatiha ak saar fatiha ak saar fatiha ak saar loolu na ngeen ko bàyyi xel bu baax a baax a baax soo sëlmalee nga commencé nag jéggalu yàlla su nit sëlmalee sooy julli nga ne asalaamualeykum wa rahmatullah asalaamualeykum wa rahmatullah looy wax sooy julli nga sëlmal ndeyjoor sëlmal càmmoñ looy wax lan ngay njëkk a wax ay wax astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ñaata yoon ñetti yoon waxuma astaghfirullah de lan laa wax astaghfirullah astagh astagh kenn du wax astaghfirullah lu ñuy wax
astaghfirullah astagh tagh astaghfirullah astaghfirullah astagh astaghfirullah waaw ñaata yoon ñetti yoon après nga wax lan allahumma anta salaam wa minka salaam tabaarakta ya zal jalali wal ikram la ilaha allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika après nga jàng ayatul kursi yu soo paree nga wax la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah allahumma la mani lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddin minkal jadd لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون soo paree nga def subhanallah 33 fanweer ak ñett noo koy defee nii nga koy defee nii nii nii nii ci sa baaraam yi sa baaraam yi baaraam bu ci nekk yàlla defal na ko trois trois carré carré trois carré carré yooyu soo ko defee benn bu nekk deux fois trente la benn bi la laa wax boo ko defee deux fois trente la nga def nii muy trente trois soo waxee subhanallah trente trois après looy def lan ngay defaat trente trois soo defee subhanallah 33 looy defaat 33 ah alhamdulillah 33 après nga defaat lan allahu akbar 33 soo paree nga tëje ko la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir après jàngoon nga ayatul kursi nga jàng qul huwallahu ahad jàng qul a'udhu birabbil falaq jàng qul a'udhu birabbin nas bu fekkee julli suba la xulu allahu xul a'uuzu bi rabbil falaq xul a'uuzu bi rabbin naas bu nekk trois fois nga koy def bu fekkee julli timis xulu allahu xul a'uuzu bi rabbil falaq xul a'uuzu bi rabbin naas trois fois nga koy def ndax xadis moo ko wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko sunnaal kon mbokk yi noonu la ñuy jullee noonu la yonente bi alayhi salaatu wasalaam daan jullee noonu la ñu santee nañ ko jullee noonu lan nu sante nii julli nañu góorgóorlu bu baax a baax li ñu waxoon sànq wala ñu waxoon ko démb wala ñu waxoon ko barki démb ci yeneen darse yi paase yi mooy ñu xam ne julli jaamu yàlla bu rëy rëy la jaamu yàlla bu màgg la kenn du ko xoole ci kenn ci kan lañ koy jëlee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam julli kenn di ko jëlee ci sa pap kenn di ko jëlee ci sa yaay kenn di ko jëlee sa maam kenn di ko jëlee sa xeet kenn di ko jëlee say mbokk kenn di ko jëlee sa sëriñ ci kan lañ koy jëlee yenent bi muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa moom moo julli ba pare mu daal di gestu sahaaba yi mu ne leen sallu kama raaytumuni usalli julli leen comme ni ngeen ma gisee may julli léegi nag yàlla def na tey dars bi jeex na incha allah léegi li ci des mooy pratique wan nañ naka la léegi nag li des mooy dañuy jël par kenn kenn mu taxaw di wane yonent bi nu mu doon jullee par kenn kenn ba daara ji ñëpp jeex ku nekk di nga taxaw wane yonent bi naka lay jullee am na ñoo xam ne dinañ ñu ko wan ci julli suba naka la yonent bi doon jullee suba am ñoo xam ne dañ leen jël tisbaar ñu wan ñu ko am ñoo xam ne dañ leen jël taksaan am ñoo xam ne dañ leen jël timis am ñoo xam ne dañ leen jël gée ba daara yëpp jeex góor ñi jeex ak jigéen ñi ñu xam ne ñun ñëpp mën nañ yonent bi ni ñuy jullee ñu doog a continuer beneen dars ñoo ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala yàlla na yàlla nangul nangul leen asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu